taa ñu tàmbali waxtaan wi euh, ñu bàyyi la nga nuyoog suñu xarit ci nga xam ne ni ñoo àndandoo ak ñun tey. waaw merci beaucoup Pape euh, Pape Cheikh maa ngi am mbégte encore une fois. Mm-hmm. teew fi ci TFM mm-hmm. mm-hmm. euh, ñu nekk Sénégal ak bitim réew. parce que quartier général maintenant c' est une maanaam émission mondiale. loolu laa koy tuddee. di beneen nuyu tamit waa Mbacke. ku ne Mbacke ne Touba. ku ne Touba sa xel dem sëñ Mountakha Bachir. mais ku ne Mbacke ne Gallo Ba. <laughs> ku ne Mbacke ne Gallo Ba waaye ñu ngi ziar kilifa yi fa nekk yëpp. macha allah di am mbégte teew fi waxtaan ak yéen jàmm ñaajo Lac Rose. mais également accessoirement signal mhm. mhm. euh, yi. kon defe naa mën nañu tàmbali c'est parti. tàmbali bi la ñuy commencé wala euh, ñaajo bi ak euh, Lac Rose bi. Mhm. ginnaaw bañ la nuyoo ba pare monsieur Ba di la dalal jàmm ci quartier général gis nañ ni yéen seen société bi am na ay ouvrage yoo xamante moom lay gérer lu ci bëri bëri lu ci mel ni Dakar Arena centre des expositions ak marché d'intérêt national bi ak gare gros yi euh, je pense bien euh, léegi yooyu yëpp gis nañ ni bañ ko fi tegee ba léegi lu ci mel ni Dakar Arena xëy na euh, compétition yi ñu fi gis ci wàllum basketball kese la hôtel bi ngeen ñëw tamit samp ko foofu ba jam ñaajo y a des gens qui se posent des questions nan lañ mën a ñëwee ba fu mel ni jam ñaajo foofu samp fa dafa dëkk non samp fa sax hôtel boo xamante ni xëy mën faa ñëw et tout euh, teg ci gaaru gros porteur bi tam gis nañ ko boobu ba léegi mais est seen ouvrage yooyu ñu ci bëri fonctionnel na et puis ba ngeen ko commencé ba léegi lu ci mel ne Dakar Arena ak euh, hôtel bi gestion lañ wax mais ndax mi ngi euh, def dara li ngeen ci doon séntu jamono ji yéen a ngi koy def yéen a ngi koy am. waaw mais merci beaucoup ci maanaam question yu bëri nga posé <laughs> mais li am solo mooy que jam ñaajo pour man li ma jàpp mooy. mooy principale réalisation Macky Sall ci premier mandat pour man c'est la réalisation la plus emblématique euh, jam ñaajo tey jii parce que en 2012 li nga wax sànq mooy Dakar étouffé dañoo wax Dakar dafa xat kenn mënut fi dund euh, kenn newtu si jàmm embouteillage yi ça nous coûtait 100 milliards par an il fallait créer une ville nouvelle boo xam te dafay nekk une ville de transition entre Dakar ak le reste du pays moo tax mu tànn Diamniadio donc c' est pas hasard suñu tànnee Diamniadio def ko def ko en fait une une ville nouvelle ba pare bëgg koo lëkkale plus tard ak Lac Rose. daaw ñooy teew fii ñu ngi waxtaanee projet yi ñoom yi yoroon ay chantier la woon tey jii hôtel Radisson pare na mhm. euh, Dakar Arena it pare na euh, le centre des expositions. fait le président de la République defee prestation serment le marché d'intervention la gare des gros porteurs également yooyu yëpp ay infrastructure yoo xam ne yëpp tey dañ ko livré ba pare kon ci wàll woowu li ci am solo mooy mënoo tey wax dëkk nga bëgg def li wax la mixité fonctionnelle et sociale fexe ba nit ki fi muy dëkk di fa liggéey ba pare doom ay infrastructure d'envergure yu mën a accompagner la politique d'État en matière en matière d'urbanisme loolu moo tax ñu defar infrastructure yooyu pour accompagner le secteur privé ñoom tamit pour man mën a mën mën ñoo investir à Diamniadio pour fexe que tey sénégalais yi mën a liggéey ñaajo parce que tey ministère yi fa nekk il y trois ans kenn xalaatal woon ne ku nekk ministère environnement wala ministère de la de euh, urbanisme wala feneen di nga mës liggéey liggéey Diamniadio kon accompagnement bi donc foog mu am ndax situation transitoire lañ nekk tey mënoo tey rek nga tabax Diamniadio créer les sphères ministérielles ba pare automatiquement nga bëgg maanaam lépp jagandoo ci benn bis. Mhm. moo tax nañu nekk ci benn processus bu ñu lancé tey ministères yi au moins vingt ministères jugee leen dakaar mhm. kon maanaam nit ki tey war naa mën a dëkk Sébikotane wala mu dëkk Tivaouane wala dëkk même Touba. Mhm. di liggéey siège ministère yi. doo jug dakaar parce que tey li am li tax Dakar am problème mooy. ñëpp dañu xëy demandoo Dakar ñëpp xëyandoo génnandoo ñëpp wàccee génnandoo génnandoo loolu moo indi en fait toutes les difficultés liées au transport et avec les conséquences liées à la pollution wala leneen donc ci wàllu gestion bi commencé nañu gestion Dakar euh, euh, hôtel Radisson tey jii may wax ak yéen hôtel Radisson dans l' exploitation am na benn partie bu ñuy jox SOGIP parce que li tax SOGIP jóg mooy infrastructure dafa dafa dafa cher état amul toujours les moyens moom rek génne xaalis pour tabax tey hôtel tabax hôtel tabax stade tabax ay ministère dafa soxla accompagnement secteur privé et pour loolu également état dafa laaj muy recourir à des financements te it boo recourir ci financement dafay laaj it nga mën a taxaw exploiter li nga li nga yor parce que c'est la première fois dans l'histoire que ñu def am société bu mel noonu bu njëkk stade amitié mu ngi fii wala yeneen stades yi wala yeneen infrastructures yi kenn da ngay jékki-jékki mu dalaa bare wala mu yàqu soji bu tax jóg mooy bu réaliser pare dafay confier exploitation bi à des privés ba pare difa am lu ciy am pour rembourser li nga xamante ne mooy dette ñu am pour tabax infrastructure donc autorisation mu ngi jox satisfaction de même que. Dakar Arena comment. commencé la gestion bon gestion Dakar Arena parce que ñun. saison bi bien vrai que inauguré nañ ko depuis 2018 ah août le mois d'août dernier mais bi ñu fa demee ci saison bi nii dañu commencé gis ay vitrines yu commencé casser fekk fa nañ ko benn situation bi nga xamante toujours li problème sénégalais di posé mooy problème mu gestion euh, entretien bi non actuellement Dakar Arena amul problème entretien parce que c'est ñun ñuy assurer l'entretien parce que pour permettre la viabilité économique de l'infrastructure dafay laaj nga mën a nga mën a entretenir ouvrage bi ñun suñu vocation du entretenir ouvrage du du exploiter par nous-mêmes dañuy confier exploitation comme ñun dañoo taxaw hôtel Radisson jox ko Radisson ñu gérer bu ñu am ci li ñuy am da am benn pourcentage boo ciy am c'est ça la même chose avec Dakar Arena avec le centre d'exposition le marché d'intégration et la gare gros porteurs donc toutes les infrastructures yu ñu réalisé dañuy confier gestion bi à des privés tey dañoo def situation transitoire Dakar ko dañu ko confier à des privés. mais nag li nga xamante ne moom laa ci mën a wax mooy commencé nañu ko joxe tey fédération de de judo. Mhm. ils ont fait des compétitions africaines foofu. Mhm. Euh, ba fédération basket toutes les manifestations yu ñu am fa lañ koy defee. Mhm. donc vocation sportive bi dañ koy préserver tey bu basket wala judo moo mën a indi koom au niveau de Dakar Arena. il faut des des des, des manifestations non sportives ay de grands concerts de grandes manifestations religieuses de grandes conférence yu mën a permettre nga mën a tey équilibrer pour fa fexe pour mën a conserver la vocation finale la vocation bi ngi jàll. Sénégalais yi xam nañ ni. Dakar Arena sport yi mais pas rek côté culturel bi communication boobu est Dakar depuis bi ñu ko inauguré ba léegi commencé ngeen ci communiquer Sénégalais yi xam ni Dakar Arena vraiment am na yeneen utilité yu dul sport bi. loolu depuis le début je pense que stade bi. président bi mu koy bi mu koy bi mu koy teg c'était pour récompenser les lions du basket. waaye dafa defar lu ñuy wax un stade omnisport. c'est destiné à beaucoup de sports. mais également vocation mooy euh, accueillir de grandes manifestations ce n'est pas pour rien que président dafa dafa congrès d'investiture am. loolu du sport loolu c'est politique. de la même manière tey manif def de grands de grands concerts. de grandes manifestations religieuses loolu on a beaucoup communiqué sur ça mais dañoo nekk ci situation transitoire boo xamante ne dañu dañu y a y a un comité qui réfléchit sur ça pour xool ñu koy rentabiliser loolu yëpp te xam naa ne transport bi dem foofu parce que toog nag ay artistes yoo xamante ne dañ doon waxtaan ci benn concert bu ñu fa bëgg dem léegi kenn ci staff bi ne que bu ñuy dem foofu problème bi nar a am mooy problème transport bi ndaxte bu fekkente ne nit yi amuñu oto nan la ñuy def bu guddee pour ñu ñu ñibbisi buñ fa demee ba pare. waaw mais artistes yenn saa yu jógee Dakar dem def concert Tamba wala. mais waa Tamba ñooy dem wala wala nekkul nit ñi jógee Dakar wala si yeneen région yi. tey Diamniadio loolu mooy loolu mooy pour man loolu mooy change Diamniadio tey ko def concert Diamniadio ku jógee Thiès wala jógee Sébi wala Kotaan feneen wala jógee Mbacké mën nga jël autoroute Ila Touba. en moins d'une heure nga jàpp jam ñaajo suivre sa concert wala def ko sa activité de manifestation religieuse delluwaat mm-hmm. dañoo nekk ci dañoo nekk ci transition tey jam ñaajo li ci bëgg lépp lépp amaguñ ko tey ci benn fan mm-hmm. mais li am solo mooy vision bi nga xam ne moo ko lal te vision boobu mooy que ni yaakaar naa quelques années kenn xaatul woon ne lu mel ni mën na am foofu mm, donc c'est une fierté national boo xamante ni dañ ko war a dañ ci war a sant mm-hmm. ba pare it accompagner autorité pour mu mën a gën a yokk ay jéegoom ci jam ñaajo mais li ngay wax ni c'est un problème réel mais jàpp naa ne que lépp loo xamante ne en tout cas bu fay am manifestation bu fa mënti am nit ñaa fay teew en grand nombre maintenant il va falloir qu'il y de des des des des mesures euh, d'incitation et d'accompagnement pour ñu fay dëkk ak ñu fa bëgg a balaa di continuer ci euh, cas euh, cas jam ñaajo bi répondre benn internet boo xamante ni dafa ni léegi ki ngeen invité xàmmee naa ko Euh, mais nee na xamul kan la alors j'aimerais euh, ñu teg portrait bi pour permettre que moom xel mi dellu si waat euh, ci galaba ñi nga xam ne ñu invité quartier général regarde ci weeru janvier atum 2016 la ñëw ci kër gile di SOGIP ñoom sax di saytu lépp lu jëm ci wàllu infrastructure publique ci pôle urbain bu Diamniadio ak ci Lac Rose Gallo Ba mi ngi judd fukki fan ak juróom ci weeru février atum 1974 foofu la ca Diourbel moom di inspecteur du travail ci wàllu sécurité sociale principal de classe exceptionnelle ab formation wam mu amal ko ci wàllu juriste d'affaires ci bi muy ndaw xale la woon bu nangoo jàng loolu sax tax ay récompense yu bëri mu daal ji ko am moom ginnaaw examen bile di certificat ay études secondaires am man ko defee ci diggante Mbàkke Kaffrine Mbuur ak Louga li ko waraloon nak doon ay affectation yu bari yu way juróom bu góor daan am ndax moom mi ci wàllu yoon la daan liggéey atum 1994 mu am bac A3 ak mention moom sax jiitu woon ca centre ba mu doon defee foofule ca lycée Seydou Nourou Tall ginnaaw gi mu jàng lu jëm ci wàllu droit des affaires ci université Gaston Berger bu Saint-Louis atum 1999 mu amal maîtrise ci wàllu droit ak mention diggante 2009 jàpp 2001 mi ngi woon foofule ca ENAM fa mu amale troisième cycle ci wàllu droit des affaires ak finance publique moom mile liggéey itamit ci ay poste yu am solo nekkoon inspecteur régional du travail foofule ca Diourbel nekk directeur des ressources humaines bu hôpital bu Grand Yoff foofule sax nga xam ne amoon na fa ci lu tollook junni ci ay agent naka noonu mu nekkoon directeur des ressources humaines bu ministère de la santé foofule am na fa juróom-ñetti at diggante 2008 jàpp 2016 moom Galoba di yëngu ci wàllu politique nekk nag responsable APR di parti bu président Macky Sall foofule ca Mbàkke Gallo Ba kër gi ñu ko dénk nag ak liggéey bi nga xamante ni moom la fay amal mel na ni am nañu ko naatable leeral yi ci lu ñeel liggéey bi nga xamante ni moom la ko dénk ci janvier atum 2016 ak léegi dinañu ko am ci quartier général bu tey bile. lii de mooy renversé.